bismillahi rahmaani rahim ñu ngi bëgg ak si arafa arafa nag mooy doj wi nga xam ne am na ci borom xam-xam yu ne fa la maam Aadama dajee woon ak maam Xawa moo tax ñu koy tuddee arafaat wala ñu koy tuddee arafaat ji dellu ci xam ndax fii lañ xàmmee wante bokk na ci yi ràññeeku ci araba mooy kuy aj lu la raw ci aj gi mën nga koo dabb ba mu des teew gi nga war a teew arafa ci bésu juróom-ñeenteel bi teew gi nga war a teew arafa ak ci bésu juróom-ñeenteel bi arafa mooy juróom-ñeenteelu fan ci yowmu arafa mooy juróom-ñeenteelu fan ci lan ci weer waan weeru tabaski am na lu ci yonentu sallallahu alayhi wasallam mooy dañ ko dañ koy lan macha allah dañ koy woor buñ ko wooree am na lum ci dige lum ci dige daakaaru daaw daakaaru waaw ñaar yëpp wër na ndax xadis bi dafa xaw am nuance mooy yàlla dana la jéggal bakkaaru at mi ko njëkk ak at mi ci topp foofu la nuance bi nekk xam nga lu tax bu fekkee ne at mi ko njëkk mooy at mi nga xam ne moo jiitu atuma rafaat mi at mi ci topp mooy at mi nga xam ne moo topp ci at bésu rafaat bi kon atum arafaat mi dafa mel ni jéggalaguñ la ko ci ñi déggee noonu xam nga kon kañ lañ la koy jéggal gannaaw arafaat am na beneen bës bu baax a woor woo xam ne ku ko woor yàlla dina la jéggal bàkkaaru at mi weesu ban bës la bësu tam xarit moo tax ñu borom xam-xam ñu kon boo wooree arafaat ñu jéggal la euh, bàkkaar at mi jiitu arafa ak bàkkaari at mi topp ci arafa waaye atum arafa wi nag ñu ne boo wooree tam xarit loolu am na ñu déggee noonu ñu déggee sax at mi nga nekk la ak ma ca topp ala kulli xaalin bés la bu ama am solo boo xam ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam da ko lool muy bés bi gën a mag ci bési aj gi walla bés bi ci gën a am importance ndax lan yonentu mu ñu xaar tuuti ñu xaar tuuti alxajju arafa daqiqa daqiqa mukammil laa nappula ida nazalna ndax yonentu mu ne aj mooy arafa ndax ni ma ko waxee léegi soo ko weesoo soo ko tardee déwénati rek soo tardee tawaaful ifaada mën nga koo dabaatal loo tardé ci aj gi mën nga dabaatal waaye arafa soo ko tardee moom déwénati rek arafa nag gis ngeen yoon wi gaaw na ndax euh, amul benn embouteillage bu doon bésu aj dana gën a jafe nii diggante arafa ak makka mat na vingt deux ñaar fukki kilomètres ak ñaar diggante arafa ak minan ndax xam ngeen ne minan la ñuy jógee ñëw arafa duñ jógee màkk directement ñëw arafa dañuy jógee màkk ci bésu juróom-ñetteelu fan bi ñëw minan fa la ñuy fanaan buñ xëyee la ñuy soog a ñëw arafa diggante arafa ak minan nag mat na fukki kilomètre waaye ci diggante arafa ak minan am na barab bu fa nekk boo xam ne buñ jógee arafa fa la ñuy jaar noonu tudd baab ah buñ jógee buñ taxee arafa bay delluwaat minan fu ñuy fu ñuy fanaan muzdalifa diggante arafa ak muzdalifa diggante fan na juróom benn kilomètre te bésu aj gi yooyu yëpp ngeen dégg am na ñoo xam dañ koy dox ndax léeg-léeg dox bi sax dafay gën a gaaw jël oto ci yenn situation yi ndax li nga xam ne moo ci nekk arafa nag wax nañ ne guddaayam bi <coughs> moom doj wi maanaam doj bi nga xam ne moo gën a ràññee ko bi yëpp arafa la waaye doj wi nga xam ne moom la ñuy tuddee jabalu rahma te dinañ wàcc gis ko moom mat na ñetti téeméeri mètre guddaayam bi ñetti téeméeri mètre boo demee nag ba ci kaw am na benn kii kii bu génn noonu nu mu tudd saaxis di génn noonu nga xam ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam muy taxaw arafa dem na ba foofa mu taxaw fa saaxis boobu nga xam ne moo gën a mooy feeñ ca kaw noonu guddaayam juróom-ñaari euh, metre la yonentu sallallahu alayhi wa sallam fa la taxawoon ni fii laa taxaw waaye arafa yëpp taxawukaay la ñu koy seet nag ngir mu fàttali ñu ajam googu nga xam ne ci kaw doj wii la defe woon xutbaam bu rëy googu nga xam ne ci la résumé li mos a xew jiitu ko moom ak lépp luy xewati ba bés yàlla am tey bi ba yàllay pencoog jaam ñi jàngale na ko foofu xutba ngoo nga xam ne moom la ñu tuddee da farewell xutba xutba gi mu tàggoo xeet wi nga xam ne lépp luñ soxla ma nga ca fii la ko defee woon bi mu jógee fii arafa ajjuma samedi mu dellu mu dem julli dégg ñetti fan yee dimanche lundi mardi mercredi aj gi jeex mu dellu Madina weer wa ca topp tam xarit weneen weer topp ca di digg balaa digg wa di jeex àllarba ji ca mujj da ngeen koy tuddee àllarbay kare ci la tëdd feebar ci li gën a siiw ñaari fan ci weer gàmm ci li gën a wér ci la fi jógee sallallahu alayhi kon fii bi fi jógee ak bi fi bi muy jógee génn àdduna weer yu néew la kon nag ngi koy visité li ma leen ko waxee woon duwul ne dañ ñoo wax ne nañ fa dem waaye dañ fay dem ngir mu fàttali ñu ki fi newoon ñi ñëwoon aji danañ ko gisee noo xam ne gisee wuñ ko woon fi ajtee ndax li fi ci nit ñi ñëwagul aj dana tax ñu nim see ñëw yàlla na yàlla indiwaat ñi ñëwoon indi ñi ñëwagut te nangu ñëpp yaa rabbi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa